salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hadj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw Hadj Babacar yóbbal bi tey jii dafay ñëw nag di wane ni nekk ci li nga war nekk ci jaamu yàlla loolu dafa am solo ndax nit mënul dëkk di man dëkk di wér soo nekkee ci lila yàlla sant bis bu tawat dikkee jarul ngay tiit. mooy lépp loo doon def di ci jële tuyaaba tawet ji du tax yàlla téye tuyaaba ji tawat ji du tax yàlla téye tuyaaba ji tuyaaba bi day continuer feek yaa ngi yaa ngi tawat ñaar rekk kay mën a am nit ki faatu ci tawat ji walla mu wér ci tawat ji bu fekkee sunu boroom dafa dogal mu faatu ci tawat ji yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram yépp boobu muy benn su fekkee yàlla dafa dogal mu wér ci tawat ji tawat ji itam effacé na ay bàkkaaram yi nga xam ne moom la amoon ba noppi tuyaaba ya mu daan liggéey tawat ji du ko tardel comme ku daan yeewu di jàng alquran te mënoo jàng alquran ndax tawat ji tuyaabay jàng alquran ja yàlla nga koy pointé muy dem ku daan saraxe te tuyaab tawat ji tax saraxeetoo ku daan tudd yàlla wala ngay seeti mbokk yooyu yépp lu ci nit doon def tawat ji gàllankoor la tawet ji du tax tuyaa ba jooju arrêté xaaj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor.